rang rang rang final individuel Gandia Fama fële yi contre Niger ko daan léegi nag si si si si li nga xam ne moo di par équipe bi ñu xool ñoom ñaar ba xam na koy dóor 2-0 wala Gandia day jël revanche am ñu ngi jàppante si ay yoxo jël na laa tànk ba coppati na yel ba bañ na rotation ah waaw borom Kaaga waagee jeg wala ken waagee jeg xandal wondel rang jël na ba woo c'est dommage gaañe ñàkk nga ah, waaye daan na ko 2-0 si ne série e nañ oh oh oh oh c'est dommage mais di courage champion la waaw beneen yoon ay dàq